muy ñaareelu guddi weeru koor ci naafile yi nga xamante ni tey moom la ñu war a def insha allah rabbi jëlee ko nag ci téere bi di xuratul ayni bu sëriñ soxay bu mbàkke ibnu xaadim rasul mu wax ne tey baax na ci képp ku ko mën nga def fatahatul kitab benn yoon ah, inna kawsar muy suratul kawsari fukki yoon rakkax bu ci nekk moom ngay def boo noppee nga daal di insha allah rabbi fatiha ben yon suratul kawsar fukki yon mo ngay def ci rakka bu ci nek wax nañ ni boko defé serigne bi neena fofu ci jotaay bi insha allah rabbi yalla dana la jéggal wolé bakkar yi nga musa am yépp sa borom dana la ko jéggal ci jotaay bobu nga defé naafile gi defal la yoolub junni ko aj makka muy aj gunu nangu ak yoolub junni ko umra umra gunu nangu tegaat ci wax ni soo ko defee it mën nga am yoolub ku gunge mel na ni junniy néew te loolu ku ne xam na solo si mu am ci lislaam wax ni itam di nga am yoolub ku wàcc ab kaamilu alquran ci jataay bi nga toog waaye képp ku ko defit di nga am yoolub ku jaamu yàlla soixante-dix ans muy juróom-ñaar fukki at yoo xamante ni jàmm ko ko yàlla te jaamu ko sa borom nangu ko loolu moo doon a njëriñal naafila guddi tey gii di ñaareelu guddi ci weeru koor kon ñu bàyyi ba suba ak jàmm ñu indi insha allahu rabbi ñu indiwaat sunu ñetteelu guddig naafila la wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu